mbokk gis ngeen ñu ngi fii ci Ouest Foire fii ñu déclaré woon démb lakk bu métti tey seen équipe Sénégo ànd ak yéen pour xool laaj askan bi xew-xew bi nan la fi demee gis ngeen immeuble baa ngi noonu immeuble bi moo jot a lakk laale laalaalee këru dëkkandoo yi. mbokk yi gis ngeen ñetti oto seetlu nañ fi ñetti oto yu jot a lakk ba jeex tàkk tàkk tàkk oto yi moom maanaam jeex nañ tàkk balaa ñuy duggoo ànd ak yéen xool kër gi xool lan moo fa jot a am mu ngi nekk nii en face euh, grand parti ñi xam yoo xam autoroute bi ñëpp nañ ko xam nañ fan la nekkee lakk baa ngi ni déclaré nekk ni ñu ngi nii gis ngeen oto yi nii lakkee ba jeex 4x4 saa ngi doon soxla sax a ngi direct ci Sénégal dañu bëggoon rek ngeen jox ñu seen ngeen wax wax ñu tuuti lakk bi ni demee. non non man xam nga fi ma dëkkoon fii nag moo tax. dama dëkkoon fii te xaw ma ma dama dama romb li sama léegi léegi mu te comme nekkoon ki fi moom kër gi sama xarit la. moo tax ma laajte mais ni nañ lakk lii moo causé quoi fii la jógee lakk jàpp nga jàppale oto yi nekk yooyu. kon lakk ji bu ñuy xool fii la jógee. waaye si fil ay fil la quoi ay fil ñoo laalante ah, moom moo lakk moom moom moo lakk kër gi ni lakkaale oto yi lakkaale aussi kër gi oto kër waaw mën nañu xam nag euh, kër yi amoon na ñu ci nekk wala je sais bon non ma daal borom kër mi ngi fon léeg-léeg dafa génn moom laa bëgg a xool ne ba xam ndax mi ngi fi woon mi ngi fi wala déet mais guddi bi kenn doon fon de guddi na ma ne ko mais amul blessé non ma nag gardien bi yow fekkee nga lakk-lakk bi mën nañ xam ban heure la tàmbali. exactement maanaam daal fi ma mën a jàpp ay 4 heures yooyu daal. ay 4 heures du matin. 4 heures du matin. la làkk bi départ. mën nañ xam ban côté ak lan moo ko lan moo ko waral. ah li ko waral moom man ma xaw ma waaye côté bee daal la jóg. ci fi ñuy jaayee bagage yi nii jaay mobile côté yooyu daal la jóg. biir kër yi amoon na nit ñu ci nekkoon. kër gi amoon na ñu fi dëkkoon. mën nañ xam ñaata appartement ñoo lakk ci biir kër gi wala. fii nag fii moom day mel ay bureau la woon tamit. mbokk yi mën nañ yàpp ne ci biir am na dégâts matériel bu bari mën na euh, nee nañu tamit amul pet en benn doomu aadama gaañoo ci xam naa dañuy ànd rek doxantu xool ci biir xool lakk-lakk bi nu mu def. lakk bi dafa jàpp lu man ñetti kër lakk fi ay appartement yu bëri bëri mën naa dugg. non ay film laalante la rek fii suuf quoi la la lakk bi ñu jógee. maire bi woo leen 3 heures du matin ne leen que am lii daal du lumière oto lumière kër la du lumière oto quoi lumière safara la ba ñu jógee nag noonu juste di génn nekk lépp tàkk na boo ñu waroon jaar si balcon bi heureusement xale góor jàppal la ñu jaar si ba mën nga yegg si kaw aussi. nga xool nga xool. léegi dañuy jéem a dugg ci kër yi xool dégâts yi fi am. ñu ngi nii ci biir kër gi mbokk yi gis ngeen ñu ngi nii ci biir appartement bi ba mu ngi tàng jëpp jëpp jëpp ngeen lakk bi ñu ko def dégâts matériels yu bari nañ ci ay moquette yëpp a appartement yi moom day mel ni lépp a lakk ngeen mur yi ni mu ñuulee doy na waar d'après information yi ñu jot a am lakk bi mu ngi déclaré wu vers 4 heures du matin gars yi nee nañ euh, nit ñi nee nañ fii ñuy jaayee bagage foofu la dekk foofu la jóge court circuit lañ wax moo provoqué incendie bi yi nga xam ne maanaam laal na lu mat ñetti kër am dégâts yu énorme mais nag euh, nee nañ ñoom sant yàlla ginnaaw amul perte plus humaine amul blessé amul dara ñu xoolee bâtiment bi gën a touché moom. ay bureau la woon employé dañoo liggéey ba wàcc waaw ñu jéem a duggaat rek xool ndax employé nañu may ñu accéder ci biir euh, euh, yi war a def ay assurance. ay lakk bi jot na touché quelque part. mais yow nag immeuble bi moom mooy immeuble bi Vivi Design nekkoon dañ fiy jaay ay meuble am na ay bureau am na lépp aussi moom booy xool sax ñoom euh, lakk-lakk bi moom la gën a touché quoi immeuble bi yàqu na ba laalaalee beneen euh, beneen maison. mën nañ coordonné presque trois immeubles lakk nañ noonu muy lu doy waar